mbir yoo xam ni dañ ko teg ci ay sart yu leer sénégalais bu am lu la am ci dem am ci yoon boo demee ci yoon nga ci réew mi ku fi jaay doole kenn nit ëllëg nga ci rendre compte loolu moo tax ñun dañu yàgg gëm ni président Ousmane Sonko ni ñu koy jaayee doole dafa ëpp li ñuy jaay doole Ousmane Sonko mel ni du sénégalais dafa ëpp te ñi nga xam ne ñoo feeñ ci jaay doole bi dañoo xam ne Ousmane Sonko xale la Ablaye Wade bi nit ñi doon wax ne mënta doon président de la république mu toog 26 ans moom Ablaye Wade ñu koy xeex ni ko doo musa doon président de la république booba Ousmane Sonko mii ko gën a nekk xale tey Ablaye Wade daa dem ba màggat nekk président de la république Ousmane Sonko il aura même quatre élections yi di ñuy ñëw bu Ousmane Sonko desee ba kanam mën a nekk candidat kon ku ciy ñaaw baye boo nga def ndànk parce que ëllëg ku ci jël ay responsable te yow warut a jël le jour où yàlla subhaanahu wa taala décidé ne Ousmane Sonko day nekk président de la république képp ku ci jël loo war te jël bu boobaa di nga ko regretté kon nag tey li ñu fi andi mooy taxaw Ousmane Sonko parce que dañ koy jaay doole li nga xam ne moo am ci dëgg mooy ay tappalekat yoo xam ne ñoom ñoo comploté pour Ousmane Sonko du nekk candidat ñu dem génne ko injustement des listes tribunal bu Ziguinchor am compétence dem ate wax ni Ousmane Sonko nañ ko dugalaat ci liste ñu gis administration bu Sénégal taxaw ni du ko dugalaat ci liste bi te tegul ci dëgg parce que DAF ak direction générale des élections Tanor Thiendella Sidi Fall nekk mel ni moom moom réew mi justice décidé ca Ziguinchor mu ni moom du dogal loolu parce que moom décision boobu arrangé wul état bu Sénégal loolu mooy wax ji léegi nag ñun ñu ñëw fii pour que ñu teg mbir mi ci yoon parce que réew mi kenn moomu ko fii kenn doon ko fi pour man fee jaay nit ñi doole léegi nag ñu ñëw fii nga mooy cour suprême fi mbaxana doone benn ñun leen jël leen seen responsabilité ngeen rejeté le pourvoi en cassation li agent judiciaire de l'état def parce que li def dëgg ci dëgg léegi nag avocat général bi ginnaaw bi ñu dégloo ñoom tribunal bi les deux parties avocat Ousmane Sonko bi ñu dégloo agent judiciaire de l'état ak ay avocat wu Ousmane ay avocat état bi wax nañ ba pare ñu may leen lu mat ñaari waxtu ñu wax ba pare ñu joxu euh, euh, euh, avocat Ousmane Sonko yi ñu wax loom lu mat ñaari wax ci yu teg avocat général bi jël parole daan ne ñetti argument yi état Sénégal andi moog agent judiciaire de l' état teguwul ci dëgg loolu la wax ci biir salle bi ñëpp di ko dégg moom le procureur général nee na ñetti argument yi ñu avancé ba tax Ousmane Sonko mënta dugaat ci liste yi ba ñuy jaay doole Ousmane Sonko nee na ñett yëpp mu ngi demande tribunal bi cour cour cour cour suprême mu rejeté ko parce que ci ay caaxaan la lalu laluwul ci droit laluwul ci dëgg loolu la avocat général bi décidé. maintenant nag président tribunal bi comme ni ma ko waxee dem Siré Ali Ba waa juróom wu góor defoon en 1988 bi Abdou Diouf bëggee Abdoulaye dootul mës a doon candidat ci Sénégal. ci cour de sûreté de l'État nga xam ni fii ci Sénégal à l'époque comme ni Sénégal yëpp tiite tey ba ñëpp tiit ni réew mi nar naa jaxasoo moo amoon à l'époque en 1988 moom waajuram wu góor moom Siré Ali Ba mii bàyyam tudd Ali Siré Ba moom moo taxaw ni Abdou Diouf loolu du ma ko def Abdoulaye Wade du ma ko traité nekk candidat xëy na élection 88 yi xeexoo am na am na ay nit ñu ci dee mais teewul damay bàyyi Abdoulaye Wade mu nekkaat candidat loolu la ñuy xaar ci Siré Ali Ba mu jël responsabilité mu woon président Macky Sall ne réew mi moomu ko amul. bu ñu teree Ousmane Sonko mu nekk candidat dañ ko jaay doole te réew mi moomuñu ko loolu la réew mi moomuñu ko ba war fee jaay doole kenn te ëllëg ko fi jaay doole ba fees ci ah woote woon parce que Abdoulaye Wade defoon nañ ko fi mujj na nekk président de la République ko nag Ousmane Sonko naa ko 48 ans 49 ans mhm. incha allah bu ab bu borom kun fa yakun décidé ni day mos a doon président de la république du Sénégal muy 2024 muy 2029 incha allah da koy nekk fii te code de code te code pénal bi dafa wax lu leer nañ fonctionnaire boo mën a doon soo fi fesee ci jaay doole bu ëllëgee il y a pas de délai de prescription loo fi def lu dul yoon dañ koy tagaat ci table di àtte yow mi nga xam si da ngaa utiliser woon moyen yi nga yoroon en tant que agent de l' état di jaay doole ab sénégalais comme yow kon nag ñun li ñuy xaar mooy tribunal bi li ñuy xaar mooy tribunal bi la tribunal bi dàq requêtu agent judiciaire de l' état bi comme ni ko procureur général waxee léegi ci salle bi ñëpp kontaan mu ni bu ñu ko dëggalee moom agent judiciaire de l' li mu wax ça veut dire que waxuñu droit bu ñu dee wax droit duñ ko dëgg. léegi nag cour de justice de la CEDEAO mhm. ñoom cour de justice de la CEDEAO nekkaluñ fi africain yi CEDEAO mhm. c' est un syndicat des chefs d' état. ñoom Alassane Dramane Ouattara ñooy waxtaan seen biir dem di instrumental instrumentaliser la cour déjà cour bi ñëpp gis nañ ñi dañoo dem soppi ko mm. biñ ko soppee laan leen man lii xeeñ neexul mm. la ma doon tiit moo am mooy soppi nañ cour bi jaay nañ doole dem andi ju leen neex ju dem àtte wax lu leen neex lañ àtte dëppoowul ak yoon mm-hmm. les cours de justice de la CEDEAO décidé ah àndul ak yoon mm-hmm. moo tax ñun loolu mënuñu li mënuñu lu naqarlu ko ak Afrique ni muy doxee c'est ah regrettable parce que CEDEAO nekkalu fi askan wi. Mhm. CEDEAO ay chef d'État la fi nekkal. Mhm. loolu moo tax cette décision là ne vaut absolument rien c'est une décision boo xam c'est instrumentalisée par les chefs d'État parce que effectivement la CEDEAO n'est pas là pour les peuples. mais c'est la c'est la CEDEAO des chefs d'État te chefs d'État yi dañuy ragalante ginnaaw parce que Alassane Dramane Ouattara soo sañoon Sénégal ki koy jiite day nekk un président de la France-Afrique parce que moom Alassane Dramane Ouattara. c'est le premier champion de la France-Afrique ñun président yu mel noonu lañ bëgg a taqalikool moo tax ñu bëgg am président bu tudd Ousmane Sonko. ñu dénk ko suñu réew réew mi teguwaat ci dëgg.

d'accord après verdict bi. ñu ngi lay nuyu. waaw pare. c'est ñu nga nekk membre de LACOS en temps euh, li nga xam ne moom mooy Yewwi Askan Wi tey li ngeen xam ne moom ngeen waxoon dafa mel ni dëggal ngeen pour ñëw jàppale si ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko. waaw ñoo leen fii depuis ce matin ñoo ngi fii huit heures ah, euh, dafa nekk bis boo xam ni dafa am solo trop pour démocratie am solo trop pour l' am solo trop pour la jeunesse surtout ak euh, ëllëg Afrique bi moo war a taxaw moo tax ñëw nañu fii te ñoo ngi dundee yaakaar bu baax a baax ndaxte li euh, ñu mujjee dégg balaa ñuy lever séance bi maanaam balaa ñuy suspendre mooy ci waxu procureur bi procureur général wax dëgg yàlla dalal na xel euh, ndaxte euh, point yëpp yoo xam ni euh, agent judiciaire de l'État jiitaloon na ko pour jéem a casser décision justice boo xam ni tribunal Ziguinchor joxe woon na ko lépp lépp lépp waddal na